tay li nga xamni ne moñ fi dajale mbir la mo xamni lu doon ram la ñepp diko gis te accident nak fi mu ci ñag bi moy ñun dañoo nekk di vivre dans des conditions yo xamni très difficile man man may 20e ICP poste de santé bu Fadial kon xam nga poste bob ñi ma succédé bëri na il y a de cela fan yële passé la nga xamni 4e xam ma je ne sais pas amna ICP bo xamni ne ma diggante sama diggante moom am na ans moy ñew na fa kérok ne ma délabrement bi moom motax mu joggé fa kon xam nga affaire affaire bu yàgg la affaire boo xam insécurité totale ndax bâtiment yo xamni mi ngi bëgg daal ci kaw nit ñi bâtiment yo xamni ni benn porte tëjuwul porte yépp tëjuwul fi ñi wax même prestataire yépp boy xolé affaire bi dafa dal ci Fadial mais boy xolé district santé bu Joal amul benn logement bu fi nek en norme keroog rek la dem ñand ne leen seen logement bi ñu rek yéen yam yem dina daanu seen kaw ak yeneen logement ak yeneen logement ah kon du ñu nekk nag léegi ci condition yoy sonn léegi nak ñu sage-femme bo xam da daa di dimbali ay nit di dimbali ay vie un prédateur sexuel lan la un prédateur sexuel un violeur un criminel ñëw diko feug ay ay certaines heures heures de crime hein? pour lan jëm ko sak jëm ko violer ba paré heureusement yamul ci lolu mu agresser, ko agression bo xamee ni ñepp a ki buy dund tay xeyna na jour dem moo ñëwul mais li def nañ lu gën touti nit li mu dé te agression yima ma doon dégg ci Sénégal suñu côté côté Fimela mais yagul ça ne fait même pas trois mois benn poste de santé boo xam dañ ko agresse poste dañ ko mujj tëj damu sa ICP bi daal di blessé sa femme bi léegi loolu ñu koy dégg te amul ben réaction bo xam def nañ ko affaire bi nak di ram di ram ak suñu kaw mani ñun ñu nek wa poste de santé Fadial ñun dañoo tiit du ma ñun ay étranger lañ parce que fi étranger amu fi ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais nak ay ndoxandéem lañ il faut ñu wax ko ndax Fadial bu nekké dëkk bo xamé ni dañoo xey suba agressé ñi xamé ay boutique ay pël Fuuta lañu gaañ leen man mi lañ ko évacuer ma maa leen référé ma def première soins yi ñu ne déetawaay ñu daal di dem attaquer li nga xam ne mooy école primaire Fadial ñëpp xam na ne enseignant yi fay jàngale dëgg la waa Fadial la nga fa waaye am na majorité boo xam dëkkuñu fa ñu dañu ne déetawaay ñu ñëw agressé li nga xam mooy CM bi nga xam ñun ñaa ñoo dend deux fois ak bii mooy deux fois ñuy agressé CM bi tey ñu agsi suñu kaw kon tiit jot na waaw tiit jot na parce que nag am na booy xool ay am na ñoo xam ne ay boutique yoo xam ne am na yeneen yoo xam ñu ngi Fadial mais kenn attaqué wu leen bu fekkee ñun la ñuy attaqué day affaire bi ciblage la waaw te ci yàggul ci même zone bi am na ay quelques mois ay enseignants la ñu fekk colaay agressé leen dóor leen di leen bëgg a violer te boobu ba léegi ñun dañoo gisul benn nit ku ñu jàpp gisuñu gendarmerie képp kenn ko mu arrêté. affaire Fadial bi bi mu commencé ba tay ñun amuñu dara benn luñu xam ci enquête bi gisaguñu ku ñu entendre gisaguñu kenn ku ñu arrêté kon tiit jotna kon dañuy wax ban réew la ñu nekk. waaw mel na yow daanaka yaa jiitu ci daanaka yow yaa njëkk a intervenir loolu ñu ci a wax. waaw li ma si njëkk a mooy man dama njàkkare moom ma dal waaw xëy na damay góor rek waaye bu doon góor bu woyof xol te ñaan naa yàlla woyof ñëpp dañ ñaan woyof xol keroog keroog man defe naa duma sax mën koo sauver parce que ay jooy laay nekkee parce que man damaa tiit xam nga dara gën a garaaw ñun agent de santé la ñu ñun population bi moo fi bàyyi képp koo dégg ñu ne la agressé nañ ko ak ku mën a doon yow bo a xam nga am nga ay sentiment day yow pour nga sauver ko la pour forte raison nga ñëw tomber sa sage-femme xam nga c'est terrible c'est des situation la yo xam ne defo na dina dund ba du dund situation sa sage-femme ñu jam ko jigen Jam ko jam xam da nga mortel ah Jam ko ci dënd muy muy saigner mu teud ci blouse mais ak qu'est-ce que tu vas faire def yàlla moo ñu may ak tamit chauffeur ambulance aussi ñu ne gaaw na moom laa wopp ñu gaaw def premiers soins yi daal koy évacuer fii ànd ak moom ba mbuur ba mu koy dugal bloc ba muy génn actuellement yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a tam moom a yee moom ñu ngi ko agressé ci maternité bi maternité c'est une nouvelle maternité qui a été construite Babacar wax na ko mais maternité bi dafa xam naa isolé tuuti soriwul noonu nag mais diggante maternité ko jamee foofu bi mu xeexee bañ jam ko moom xalaatul kenn ku dul man parce que dafa daw di yuuxu di yuuxu nee bamay ba génn man dama ko fekk mu daanu système sama presque sama buntu logement fa laa ko fekk sama buntu logement presque fa laa ko fekk te moo jógee boppam fële di daw ak ay jam-jamam ak ay deretam di yuuxu di yuuxu ba yuuxu moma moom a yeeg ma ñëwee sama buntu logement la ko fekk mu daanu les prochaines étapes waaw saga yàkkamtee xeex la ñun dañu jël suñu décision ferme parce que lii diñ ko bàyyi diñ ko bàyyi parce que tax diñ ko bàyyi waxuma la ñi ma saaña mi ñu agressé waxuma la sage femme bi aussi mi ngi kiyam mais le waa si ñun la jëm suñu kaw la jëm

xalé la bo xam nak elle marié amna ñaari bant waaw ñima dafa génn nek ci Fadial la dëkk ci peuple fofu la dëkk bii dëkk bi mais dafa ñëw di ñu demander pour ñu may ko pour mu am la mais parce que sa femme la bo xam dafa exercer wul woon waaw lool nak ñun ak demande sax Yassine Sall mi ki xam mooy coordonnateur stage mo sax dox na ci ay djégu pour ñu accès parce que ñun sax laajal sage-femme nous étions très sceptiques parce que ma lay xamal dara gis nga ñun parce que santé bu Fadial demander major du centre bu ma yónnee stagiaire damay bañ parce que man duma nek en danger di jël doomu aadama di ko mettre en danger parce que wóorul do jël doomu jambour tek ko ci bâtiment bo xamni dara bu xewé daan ci kaw nga ray nga fat ko man dama refuser ay stagiaire à Fadial depuis des années Adja yassine mo ngi ni ñima bo gisé mu ñëw ci poste bi il a fallu ay ay waxtaan ne même ci dëkk bi dëkk dañu bañoon ñun dañu bañ dañu xamné xam indépendance sécurité mais biñu pousser pousser poussé ba ci liñ ko accepter pour mu ñëw di def la garde te ñepp xamnañ né charge femme accouchement lu upp 80 pour guddi lay xew motax tax ko fa tek ak bravure jambar la pour me def ay accouchement pour me maîtriser l'affaire, c'est une jeune fille qui xamee mi a elle est encore communautaire